Eh, asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ginnaaw bi ñu jiitalee ci siyaar bi Cheikh Modou Mountakha yàlla na fi yàgg tànn wér eh, tey ñoo ngi fii ci kanamu al imaam Serigne bu so imaam Serigne mi nga xam ne mooy sunu jëwriñ ci liggéey bu sell bu màgg bi ci jumaay seexul Khadim ci daayira Muxaddamaatul Xidma teewe tamit ak suñu kilifa muy sëriñ Fallou moom sëriñ Khalil Mbacké. moom Cheikh dul faadal mu ñëw tey jii ànd ak euh, lenn ci njaboot gi lenn ci kër gi euh, ci yi ñi muy Serigne Bamba Seck euh, ak sa njëga caam ñu bàyyi ko ba Burkina Faso mu mel ni tey dañ fee dajawaat tam daayira bi nga xam ne mooy daayira Touba Togo ci njiitu sëñ Mamour Dramé ak mbooloo mi mu àndal Miftaal Xuyor Euh, ñu ñëw fi nag ngir indi seen addiyaat ji jëm ci liggéey bi nga xam ne moo jëm ci jumaa ji te daayira Muxaddamaatul Xidma di ko taxawu euh, daayira Burkina moom mën naa ci ñoom seede ndax sëñ Bamba Seck mii euh, ak ku ñuy wax sëñ Mor sëñ Mor Gueye ñoom dañoo ñëwoon fii Touba di fi julli ci màggal ñu julli suba teel 5 de matin ci lañ amoon yëg-yëgu liggéeyal sëñ Touba ci jumaa ji ñu ñu ñu ñu dëkk ci sëñ Afia wax ko ko sëñ Afia ne leen na ngeen déggante ak sëñ Assane ñu woo ma ci 5 heures de matin ma dox jóge kër ga ñëw ba ci ñoom bi ma ñëwee liñ ma njëkk a wax mooy dañoo bëgg a liggéeyal sëñ Touba ci jumaa ji ma ànd ak ñoom ci bureau ba sëñ bu Bousso moom sañ Afia daal di may jox ay bloc ñu yóbbu ko ca réew ma daaw ci waxtu wii àndoon nañu ak daayira bi yëpp ñoom waa Burkina ñëw fii jébbale seen seen addiya kon nag màggal gi itam ñu ñu defaat nañ ko defee woon daaw ñëwaat nañ indiwaat seen addiye fii biñ ñëwee itam indi nañ fii ñeen fukki junni ci turu mbooloom daayira ba yëpp sëñ Mamour Dramé mii tamit bàyyi ko ba euh, Togo te it kenn ku ne xam ne ñoom ñii euh, damay wax ne sax euh, seen ñëw ci jumaa ji moom am nañ ci xaas ndax ñoom itam indi nañ seen addiye mu toll ci fanweeri junni waaye buñ fàttali man de dolli ko waa dolli ko naa yaakaar lool ci seen seen seenu doxin yéen ak seenu liggéey noonu laa ko amee ci ñëpp nag waaye yéen da ngeen a ñëw fii toog siyaare sëñ Afia ne ko ñu ne dañoo am liggéey bu ñu sembal sëñ Touba sembal ko lislaam sëñ Afia ne bëreet jóg dugg ci biir génn ab kaamelu alxuraan di ki jox leen ko ne leen bu ngeen demee def leen ko ci liggéey sëñ tubaa bi woo nga ma fii ne ma booba ak tey ñoo ngi koy wàccee di ko addiyaale Seexul Xadim moom mii wax na ma loolu sëmb woowee tam sëriñ Touba defoon na leen tax muy jumaa jooje ñu doon tabax ca ca Togo wax na man ne jumaa ji yegg na ba tey jii euh, yaakaar naa buñ ko ubbeegu tam ña ngi koy tàmbali julli kon nag loolu moo seede ne liggéey boobu Serigne Touba gërëm na ko waaw kon xam naa damay gàttal kàddu yi rek su ko defee ñu jox kàddu gi euh, suñu jëwriñ ji nga xam moo bàyyi ko euh, Touba Burkina mu wax ci turu kàddu waa waa Burkina yëpp. waaw. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi lay nuyu di leen ziyaare bu baax di wax ci turu daayira Sëñ Tuuba Burkina Faso eh, man mi jiital ci ci daayira Muxaddamatul Xidmat waaw ñu nuyu fii ziyaare seen bi ziyaare imam Bousso waaw indi nañu fi adiyel toll deux cent mille mais xem nañu ko nag mais xem nañu ko mais ñaan gën a yokk ñaan dëkk bi am jàmm Burkina Faso am jàmm. waaw fas yéene tamit jublu ci liggéey kër tabax seen Touba bi waaw fas yéene tamit ñu ñaan ñu am ci dam voilà suñ ko tàmbalee rek su ko sóobee rek mu daal di a pare waaw ànd naa fi toog naa fi sama kilifa tamit seen Fallou Mbacke indi seen Khalil Mbacke ak Ndiaga Thiam daayira kii mooy jiite daayira seen Bassirou Mbacke Burkina Faso waaw ñu ñaanal mbooloo ba ñu ngi siyaay tamit waa daayira Togo voilà siyaare ñëpp ñu ñaan yàlla seen Touba ubbi ñu xéwal ñu man di taxaw ti liggéey yëpp wax nañ ñëpp ay taalibe Sëñ Tuubaa la ay Baye Fall maam Cheikh Ibrahima Fall lañu waaw waa kër Sëñ Fallu la waaw ñëpp fexe tabal suñu liggéey ti kër yëpp waaw ñun ay taalibe Sëñ Tuubaa lañu liggéey Sëñ Tuubaa rek moo ñu yor yàlla ubbi nu bu ñu xewal yi nu mën di taxaw lépp luy sóobu ci liggéey Touba lépp luy Sëñ Tuubaa ñu mën suñu loxo voilà adiya bi nag fasara fasara nañu ci ñëpp képp ku jullit képp ku taalibe nag gën a fasu adduna bi yëpp ak Touba yëpp fasara nañu ci ci deux cent mille ku joxe ku joxe wul yëpp fasale nañu ko ci Mbakke Borom Tuuba jërëjëf jaar maam Cheikh Ma Fall jërëjëf seen Fall. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, maa ngi nuyu kilifa gi xam ne moom mooy suñu jëwriñ ñun ñëpp muy imaamu Touba Serigne Afia Bousso Bousso ñu ngi lay ziare bu baax a baax. te di leen ñaanal yàlla na nga fi yàgg te di ñaanal si Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér di ziare itam eh, Serigne Assane Diop mii xam ne moo tax ñu dugg ci liggéey suñu Tuubaa bu mag bi ndax jumaay suñu Tuubaa ji moom liggéey bu mag la ndax lu Sëriñ Tuubaa bind bàyyi la fi bàyyi la fi la kon bu ñu yàlla defee ba sëñ Assane fexe ba ñu dugg ci. moom ñu ngi koy jaajëfal man nag maa ngi wax ci turu euh, daayiratul Miftaaxul Xuyóor Touba Lomé ma nekk jëwriñ ji ànd nag samay samay conseiller man nag samay conseiller laa wooyee samay jëwriñ euh, ma ci lim Cheikh Ahmadou Bamba Diop ak sëñ Modou Mamoun Jong ak ñi xam ne ànd naag ñoom ñëpp sama rekk yi xam ne aussi ñoo nekk France biñ ñu dañuy jógee dañuy dañuy siyaare sëñ Afia Bousso ñoom dañ dañ ñoo fekke si ko muy sëñ Makouma Sall ak seen taale mi xam ne moom itam sama rakk la ànd ak samay jarbaat yëpp ñëw siyaare ñun nag li ma wax rek ñun léegi yematuñu ci di joxe rek ci ndogu yi ndogu yi ci jumaa ji fas yéene nañ di ci joxe comme nañ ci daan joxe mais dañu fas yéene waat itam saxal di indi. maanaam daayira fii ci jumaay Serigne Touba ji ñaan yàlla yàgg ko indi te yàgg fee fekk sëriñ bi muy sëñ sëñ affaire Bousso euh, liñ indi nag li ñu wax addiye moom euh, kenn du ko xeeb mais indi nañ lu toll ci cent cinquante mille mais dañoo ñaan yàlla nag gën a defaruwaat ndax li tax ñu gën a yokk Pastef bi moom mooy dañoo am xewalu sëñ Afia buso yónnee Togo ay kilifa yoo xam ne sax ñoom euh, ñun taxuñu ma leen jóg li leen taxoon jóg moom mooy jaar fi sëñ Touba jaaroon ay jaar jaari sëñ Touba moo leen taxoon jóg muy euh, sëriñ Abdoulahat Bousso ak sëriñ Jiili Bousso Khalil ñooñu nag soññ nañ boo xam ne bi ñu soññee. ak bi ñuy dajale lii ci boo ko xoolee ci weer lay toll ñu fas yéene nag bëgg sëñ bi ñaanal ñu ndax ñun li ñuy wër mooy liggéey Serigne Touba te ku nekk xam ne jumaay Serigne Touba ji moom liggéey Serigne tubaa la kon nag ñu fas yéene sëñ bi ñaanal ñu liñ indi tey dewen yàlla ñu mën a indi fukkam te bu ñëwee yàlla ñu fekk sëñ bi mu ci jàmm ak salaam fekk fi sëñ Assane Diop itam jàmm ak salaam ñaanal taalib yëpp itam. Euh, sëñ bi ñaanal ñu gën koo ñu gën ñu gën koo mën a jekku ndax euh, murid moom li ko war rek moo liggéey sëñ Tuubaa te te fii toon àdduna bi moom dara def desul mooy liggéey sëñ Tuubaa kon nag bu ñu yàlla dimbalee ba ñu ba tudd liggéey sëñ Tuubaa di ñu ci tudd kon loolu moom sant yàlla lañ ko def ñun waa Miftahul Xuyóot Touba Lomé ñun nag dañu amal sant goo xam ne dañ ko sant sëñ Afi Bousso ndax bañ ñëwee euh, def première Euh, coulage ci jumaay Sëriñ tubaa ji ba ñuy wax ne ko dañuy jàng kaamil alxuraan du ko def addee Sëriñ tubaa moom nu ko si Assane waxee noonu daf ne bërët dem jël kaamil alxuraan jox ñu ko nañu Sëriñ Tuubaa léppam alxuraan la Sëriñ Tuubaa mën nañu léppam alxuraan la kaamil jox naa leen ko kaamil bi moom jox naa leen ko fa ngeen bëgg yegg da ngeen fa yegg ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi kon nag tey buñ toogee ba liggéey jumaa joo xam ne nee nañ sous-région bi ñoo fi dàqale sous bi ñoo fi dàqale si mun taxaa si mun taxaa wax na ko tey nen nen sama ko sedd na guy ci liggéey bi li ko ci gën nag moom mooy làmp faal bi te ñun dañoo doxee doxinu Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa bi ñul kër Sëñ Tuubaa Sëñ jàkkale bind ak jumaa ñun nag lañ lañ lañ def mooy jumaa def fa nag ñaari néeg yoo xam moom mooy dalukaayu waa kër Sëriñ Tuubaa yi waaw ma bëgg nag sëñ bi ñaanal taalibe yi ndax fas yéene nañ daal kenn du ñu mën ci liggéey sëñ Tuubaa bii muy muy Moukhaddamatoul ma loolu moom fas yéene nañ ko kon ñu bëgg nag sàkku ñaan ci mu sëñ bi mu ñaanal ñu ba lépp lu luñ ci yéene yàlla nañ ko mate yàlla nañ ko mën a yeggali fekk fekk leen fekk jàmm ci bàkk tubaa di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp ci bàkk Serigne Touba jërëgéen jëf suñu ko sedd na guy bàkk Serigne Bamba jërëjëf sëñ Mamour Dramé mi nga xam ne moo doon wax ci kàddu ko waa Touba Togo Euh, ak sëriñ Bamba Seck mi nga xam tam moo doon wax ci turu waa Burkina euh, kon xam naa dañuy jëbbal kàddu gi rek sunu kilifa gii nga xam ne mi ngi teew euh, di setub Seex Mamadul Fadal tawféex da cee am ndax damay wax ne jumaa ji moom ku tudd jumaa ji da nga tudd Seex Mamadul Fadal te ginnaaw Seex Mamadou Moussa Mbacké bi mu ko tàmbalee Seex Mamadul Fadal moom moo moo ubbi jumaa ji kon nag tey jii ab daayira bu dee liggéey lu jëm ci jumaay sëñ Tuubaa ji eh, sët eh, sëtub Seex dul Faadal ba noppi ñu tudde ko sëriñ Fàllu ànd ak yéen ba ci al imaam eh, jébbale seenub liggéey loolu rafet nañ ci njot suñu xel dal na ci kon nag sëñ bi dañ koy taataan rek ay kàddoom yoo xam ne xam naa ay kàddoom moom bu jibee moom ci taalibe yëpp la jëm ñu xam ne lii nu am nag tawféex la joo xam ne baax ak jàmbaar ak Pastef taxul nit am ko sëñ Tuubaa lay tudd rek boole la ci waaw ndax eh, bu yàgg rek dégg na sëñ bi di ko wax jumaa ji moom eh, doonu lu yomb loo xam ne ku jóg tàbbi ci sëñ Tuubaa tànn ñi mu ciy liggéeyloo kon nag yéen ñi nga xam ne agsi ngeen ci sunu xel war na cee kenn ku ne xeram war naa gën a dolli ko yaakaar waaw. ma tawfiq illa billah asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di ziar bu baax. di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Afia imaam ak mbokki taalibe yëpp ak mbokki waa daayiratu Muxaddamatul Xidma tey nag ma àndoon ak waa Burkina Faso comme ni ko sëñ Assane waxe fekk fi waa Togo xam naa yaakaar naa ñaari dëkk yi benn la sorewuñ lool ma ñoo frontière ma àndoon ak ñoom andi leen ci sëriñ Afia ngir jox jébbal liggéey boo xam ne ne dañ koo liggéeyal Muxaddamatul Xidma Muxaddamatul Xidma nag yaakaar naa ne ku ci ne war nga cee dugal sa loxo ndax liggéeyu Serigne Touba la te liggéeyu Serigne nag ku ci ne moom ci ñun moom ngay xeeñtu yaakaar na kon jaadu na fu am murit mën a nekk donte ñetti nit la wala ñeent sax ñu taxawal fa luy wane ne lii ci jumaa ji la jëm lépp baax na nag waaye nag lu ko suñu asan waxee jumaa ji moom da di cërub sëriñ bi boo xamee ne moom saa soo gëstoo fekk ko fa te saa soo ñëw it fekk ko fa kon nag murit bu nekk war na cee jàpp di ñaan nag euh, euh, mbokki taalibe yëpp yàlla yombalal leen ko te may leen xol buñ ci mën a duggee te daje cee ngërëm ak sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu ci nuyu bu gën a màgg nuyu bu gën a tedd noo ngi nii toog ci kanam sëriñ Afia Boussa ilimaani jumaay Tuubaa kon nag mën naa ni ilimaani murid yëpp te kenn ku ne xam na ne mate na ko ñu ngi nii toog ci kanamam ñun waa daayira Miftahul Xuyóor bi jóge Cotonou bi jóge Lomé ci turu Serigne Mamour Dramé njiit li ànd ak kilifa yi ñuy wax sëriñ Bamba Diop ak sëñ Modou Mamoun Niang jong ak sëriñ Cheikh Diop di sët ci sëñ sëñ Massamba Diop ak délégation bi ñu àndal bépp kon noo ngi jégalu ndax mbo euh, dañ na ku lim juum di def délégation bu mat ñëw ci kër sëriñ bi di ko siyaare siyaare ba gën a màgg di ko siyaare ci ci fi mu bokk di ko siyaare ci liñ ko jox te mu yor ko yor bu rafet di ñaan sa borom guddalaw fanam te yàggal ko fi lool ndax mun yàgg nañ ko fee fekk tam mat ko sëkk ndax kaamil boobu mu leen jox am na yoon wu ñu fi ñëwee maag Ahmadou Diouf joxoon nañu ko kon moom kenn ku ne xam na ne alxuraan rek lay dunde kon noo ngi koy ñaanal sa yàggal ko fi sa borom guddal aw fanam te yàlla mission am yàgg yàlla na mission am yàlla bu ko dara gàllankoor yàlla sàmm ko sàmm njabootam. ñu ñëwoon nag doon ko seet si ngir liggéey jumaa ji daayira Muxaddamaatul Xidma du ñu taxawal di nit ñu mat kenn ku ne xam ne mat nañ lañu ñu doon njabootu Sëriñ Tuubaa gi jiite ko di liggéey ngir liggéey seen maam taalibe yi topp seen ginnaaw ñu ñëw ngir di ci andi di ñu ñëw nit ngir bokk ci liggéey boobee tàmbali woon nañ ko sax yaakaar naa ni bii mooy ñaareel bi yoon wala ñett ah waaw kon loolu moo tax rek ñu di fi teewlu dikk di andi suñu ya xeeb ko lool ndax comme ni ko sëñ Mamour waxee biñ ko tàmbalee dajaleel ak léegi matul weer ndax ndaw yu ndaw yi fa yabaloon ñu ñëw doon xëynti yoonu Serigne Touba ba ñu dikkee ñu laaj leen am leeral guñ ci def ca la dong ngay wax ba am pësseef ni kat nun duñ màggali ci loxoy neen te liggéey boobu dugaluñ ci suñu loxo saa borom dogal ñu dajale lu toll ci fan fanweeri junni jox ko sëñ Mamour ak ñi mu àndal màggal si ñëw teg ko ci loxol loxol sëñ Afia sëñ nag noo ngi ñaan saa yàggal la fi lool. ci barkeb soxna ci barkeb sëñ Bousso bi laay wax ndax kenn gën laa jege Serigne Touba ñu wëlbatiku yëkkati li nga xamante ne bii ni moo gën a rëy ci dëkk bi teg ko ci sa loxo te ko la gis xam am na ñu la xam ci jataay bii ndax am na fi ñoo xamante ni bii ni defe naa ne la nekk ci ñoom ci xam-xam yaa ko ca def tàmbalee ko sëñ Cheikh Diop mi ñu yàgg ñëw di la fekk ci jumaa ji. kenn ku ne xam ne la nga yor mat nga ko sëkk kon nag dañ lay ñaanal rek sa sàmm la sa jàppale la ba fa nga ko bëgg a yeggale nga eggale ko fa ak seen njaboot te dara bañ leen a gàllankoor ci barke Serigne Touba yaakaar ji njabootu Serigne Touba am ci yow ba yëkkatal lii teg ko ci sa loxo muy responsabilité boo xamante ne bii ni benn bu ko ëpp doole nekkul ci Touba gi noo ngi ñaan sa borom may la ci ndam te dana am bu soobee Serigne Touba ndax yaakaar naa ne sama am ci ñi sosoon yoonu murit la bokk kon nag bu ñu loolu jox la ko. sa alal lañ la delloo te nit ki bu yoree am yaakaar naan dana ko fonk dana ko téye kon li ñuy def rek mooy ñaanal la rek la def waxtu yu jigéen a noo ngi jégglu ndax waxtu yu jigéen a jot amul kon mba euh, nga ñaanal nu rek ba beneen yoon bu ndikkee nag man koo gën a yaatal sunu xol sedd na waalo me ñëpp seen xol sedd na taalu bi yëpp seen xol sedd na buñ jàkkaarloo ak yow rek sunu xal dal na nga di leen ñaanal nag sa borom may leen xéewal te musal leen te sàmm leen yow it ñu ngi lay ñaanal waaw ndax kaamil ba nga leen joxoon fu ñu ko wàccee rek ñaan sa borom guddal soo fan te egg nga àggale sa mission ci barke Cheikh Al ci barke Soxna Jaara bu soppro kaddu yi eh, kàddu yi nga xam ne tam noo ngi koy waxaat ci turu Sëñ Afiya mooy delloowaat den cant ak ngërëm te xam ne liggéey bi ngeen doon liggéeyal Sëñ Tuubaa daal liggéeyal ngeen ko moom fi ko gënal ci fin ko liggéeyal ndax kenn ku ne xam na ne fii moom moom sëñ Tuubaa moom moom foofu la tànnoon it xamaloon ne moom bu ab liggéeyam sottee itam foofu lay dalloo si kon nag ku ku ku ku liggéeyub liggéey indi ko foofa sa yaakaar war naa doole ko sa xel war naa dal ngeen boolewaat daal soññe bi mu gën a yaatu ndax ñaari daayira yi fi dajee sëñ Fallou Mbacke mi wax na ko muy diggante Togo ak ak Burkina kon nag réewi Afrique yëpp ñoo ngi leen ciy woo démb la fi waa Mali jóge ak waa Côte d'Ivoire waa Ghana ñoo ñëpp waa ba ba Nigeria ñoo ngi déggante ak ñoom réewi Afrique itam yaatu na waaye nag du ñëpp a wuy seegun loolu nag la ma ci waxoon laa ciy wax rek woote woote la boo xam ne daal rawante njëkkante la kon daal nañ ñëpp xam ne woowaat nañ ñëpp yitte yi nga xam ne tam daayira bi amoon na ko gaaraloon nañ ko fii barki démb muy lu mel ne oto vidange boo xam ne oto oto setar na bu ndox boo xam ne soxla woon nañ ko ak échelle électrique ba ci ba ci oto camion boo xam ne oto buy mën a jël ay mbuub ay yooyu lay doon waaw yooyu yëpp moom bokk na ci yi nga xam ne yitte yi xam ne waxoon nañ ko waaye buñ jógee daal ñu feddaliwaat suñu laxasaay te gën a taxawaat ci liggéey bi ndax liggéey bu mag a mag a fi nekk leeraloon nañ ko démb koor gi lu ëpp juróom fukki million def nañ ko ci lu man ñeenti junni doomu aadama ñoo fiy dogee màggal gi junni doomu aadama la daayira bi waajal ñu nekk fii di taxawu biir gi ak bitti gi daayira bi yor lépp entretien beeg ba bàq ya lépp loo xam ne lu fi lu ñu fiy def rek daayira bi moo yor loolu kon nag liggéey boobu bëgg nañ képp ku jóg nga jugaale ko képp koo xam ne dégg na ko tamit te bëgg a liggéeyal Sëñ ab liggéey ngi ni bàq bu tooy la waaw woo nañ ci ñëpp nag kon nag ñu fay nag toll rek nga tàll sa loxo sëriñ bi def ñaan